di duñu deñ nag di ñaanal euh, président Abdoulaye Wade defe naa mu ngi ñuy seetaan. Mm. ñu ne ko maam bëgg nañ la gisaat. Mm. jox la loxo pour wax la jërëjëf yoon bi ngeen jaar c'est ça pour au moins wax la ne yow depuis 2007. Mm. fii ak fii la ñu la ñu toll. di ko jaajëfal di ko gërëm. te ñun suñu kal la buñ ko ñaanalee rek dafay dal. parce que daf leen jàppale. bu baax a baax a baax. parce que lan moo indi seen xamante ak président Wade. xamuñu ko xamuñu. comme ni 8 mars motax ñu fonko ko mm, ñun dañuy def 8 mars euh en fait média yi pour mm. ñom bu ñu ci boolewul faatu faatu yi rek 8 ah. mars bi donc ah, man de 8 mars buma len amul duma neex lolu aussi lolu mom je l'assume lolu <laughs> aussi dañ leen ci remercier mm. bu baax parce que mën naa ne grâce à yéen Abdoulaye Wade li le setan le maître c'est c'est 8 mars 8 mars la seetaan kii ñu doon def nak ñun aussi patience dafa baax dañ daan def chaque deux mois ñu bind lettre adressé ko dem yóbbu ko bureau courrier teg ko fa pendant sept ans pendant sept ans ñu am patience boobu donc un jour rek la ñu woo ne ñu maître Abdoulaye euh, président Abdoulaye Wade daf leen bëgg recevoir un un un un lundi donc loolu lañ ci am jour boobu nekkoon na jour bu rëy ah oui hmm. ki ma woo daf ma woo ne ma c'est Fatou Sylla ma ne ko waaw mu ne ma Fatou ak Fatou Camara mu ne ma demee à 18h maître Abdoulaye Wade def leen war a recevoir ma ne ko ah xam naa kuy tooñ nga rek ñun lu ñu doon ci réew mi ba Abdoulaye Wade di <laughs> ñu recevoir mu ne ma pourtant si ma ne ko non bu dee koy tooñ vraiment man damay door a wàcc te damaa sonn mu ne ma pourtant si mm. ne ma ne quittez pas bi mu ñëwaatee na ma effectivement ma ne ko mais tenue la ñuy sol pour man ba tey day wax noonu mu ne ma noo comme dañ koy téléviser daal li may expliquer. donc surprise boobu lañ ci am. mu doon jour boo xam ne yëgal ko sa tooma ma yëgal ko sama tooma comme man damaa doon nit koo xam ne man moom dama freelance. Euh, sama tooma ne ma moom <laughs> moytul ci lii laa lay bàyyee ndax xam naa ne danga may nax. même moom gëmu ko woon wallaahi même moom gëmu ko woon mi ngi fekk sama yaay mi ngi dund maa ngi koy yaanal yàlla yërëm ko yeesal yërmande ci kawam mu tourné ne sama yaay ne ko mère Ndiaye mm. Fatou mii de li moo wax xam naa ne dafay caaxaan mm. xam nga donc mu doon moom aussi gëmu ko parce que loo xam ne sóoruñu ko mm. mu recevoir ñu moom moom président Abdoulaye du jox ñu tatagal ñu te ndeysaan moom mébétam moo doon mébétam moo doon lii mu ñu jox dafa doon nekk garage vitrine okay. à Dakar région yi nekk ci Sénégal yëpp daf ñu fa doon jox tere ñu def fa garage mais bon mébétam boobu yeggul mais li mu ñu jox rek ça va mm-hmm. sant ci bu baax sant nañ yàlla bu baax di ko gërëm mm-hmm. alors évolution bi Fatou naka la demee ci garage bi nekk ci Liberté 6 tey évolution bi mm-hmm. euh, terrain nu lañ leen jox ngeen war ca nekkaat di taaba taaba boobu itam doole bi demeewul noonu je suppose alors naka la maggee yoonu ndam boobu voie du succès boobu comment ça s'est passé waaw comme ni ko sama tooma waxee rek di def dërëm tànk rek bañ a yàkkamti ñun nag fi ngay gis ni tooma yàkkamtiwuñu ñun loolu moo tax yàlla di ñu dimbali ci lu bëri dañoo am patience àdduna boo ci nekkee bëgg lépp xëy tey sotti di nga mm-hmm. dugg ci loo xamul mm-hmm. wala nga échoué suñu temps la ñu jël rek comme lim la wax bu ñu amee njëgu benn siwo peinture daal di dugg ci kii bi xool nuñ ko mélanger mm. peintural nañ suñu bopp ba tey yàlla indi ba ñu mën a am peinture boo xamante ni defar nañ ko mu professionnel moo mu defar ko mm. mais dañ daan def bu ñu amee jënd peinture mélangeal suñu bopp peinture defar ni toujours dañuy bëgg a créer li ñu am mu néew mu bëri boo xoolee même ci armeel yi nekk ci armeel yoo fi mu nekk ay zinc maa ngi photo yi maa ngi koy won kii ok waaw waaw suñu suñu mënee am image yooyu y a des y a des y a des images de souvenirs foofu suuf la woon mhm. terewul dañ koy lay ba mu set ok daal di koy defar jël peinture yi defar ko mhm. jël tableau bi nekkoon ci biti amuñu woon lu ñu fay ñu bindee ko ñu mhm. bindee comme bi ñoo ko bind <laughs> ak garage Fatou li ñoo ko bind ku defar li <laughs> pourtant jub na de way bind bi rafet na <laughs> ah d'accord li yoof la woon yoof la woon ok ñëw jël tuuti tuuti karo maa ngi lay wax fii ci suuf bi boo gisee cercle bu yéen a ko karole loolu lépp dañuy toujours dañuy toog di xalaat hmm. est-ce que defee couleur bi yëg bi daal di koy agencé defar kon yéen vous étiez peintre vous étiez carreleur maçon na benn boo xamante ni mbaar hmm. bi xoolal dañu ñàkkoon moyen ba nga xam ne kirtinding yooyu nga xam ne bu tawee ndox bi lay sottee <laughs> gis nga yu fii kirtinding yi lañ jël hmm. def ko def ko kii def ko def ko mbaar gis nga zinc yi kii lañu créé yi ñoo ko peinture man ak Fatou Sylla ah ñoko peinture defar ko créé fi genre bureau gis nga mm-hmm. gis nga zinc yi la mélone ñu lay ko ba mu set mm. bu ñëwee dal fi mo nekkoon bureau bi fi mo nekkoon bureau bi lañ defoon bureau gis nga léegi tey mun nañu won bureau bi nu mu mel ah, euh, voilà am nañu am nañu bureau bi tay en 2024 mm. mm. des images que nous avons prises hier donc euh, pour woné né voilà yéen ngi noonu ak euh, Ndeye Sali Diop Dieng quand elle était ministre de la femme certainement yi ay trophée la yi ñu jox